waaye dañuy jékki-jékki ñu bind ko ci journal mhm. ndamawuñu ko nag lépp yàlla suñu borom la mhm. ndaay ñaq yi ñuy sangee nit ñi géej ñu bari xam nañ ko de ni laay taxawee ñu ne danoo ragal ma taxaw ñu dugg ci géej gi sangu une heure du matin deux heures ma ñaan li may ñaan ñu génn tubaar fakàlla macha allah. kon seen euh, képp kuy ak ci lu mu mën doon. ak ci lu mu mën a doon. ci lu mu mën a doon ci kàttanu yàlla. Mhm. boo ñëwee fii ñu jëflante ci kàttanu yàlla ñu teg ci nag. cat dafa bari léegi te mm-hmm. eh, buur waxuma la cat dafa bari waaye cat rek bu la jàppee da ngay defe ni dañ laa liggéey dañ laa yàq te fekk na moom cat dong la am nañ fi ay saabam am nañ fi ay sangatam yoo xam ne benn yoon da nga koy jëfandikoo boo pare bu la neexee nga may ko keneen mu dimbali kooku lu wér nag bokkul ak lan ñu mosaloon mag Mansour suñu caméraman bokkut ak loolu am na loo ñu joxoon de te saa ñu xëyee laal ko balaa guddi. waaw dara ñu mas loo xam loolu loolu bayra loolu bayra la loolu bayra am am la ndax man bayra mun nga indi sa parfum sax ma jatal la ko ci sangat dama la koy defal foo mun ti nekk ci àddina bi loolu ma la jox bayra la ay laaj ko lañ la ma nga ne da ngay diw sa loxo rek raay sa kanam. léegi yow càngat noo danga may woo ma woo bu ñu jëflantee ba nga xam sa weexal ba pare. man la wutal siwo ñu wan ma jinne yi foofu lan nga war a kii man la wutal nen mm-hmm. nen yu weex. def ci defal ndox nattal vinaigre blanc man damay sangat nit ci vinaigre blanc vinaigre blanc vinaigre rouge kan nga gis mu koy sangat nit fi ñun suñu xam-xam doo dox fenn ba gis ko yàlla moo nu ko may ñu ngi koy sante yàlla boo wutee yooyu yëpp nga téye sa téléphone ñu ngi may dégg bu baax ñoom xam nañ ndax am naa ay client nag ci mborn bi macha mm. allah soxna na fi ñëpp xam nañu bu déggantee téléphone nga gëmm couleur bu fa nee dinaa la couleur bu noir bi la jege neexuma puus ko nga am na ñoo xam sax dañuy ragal ba couper seen téléphone nga noppi ma jat li may jat bu ma paree ne la sangoo ko ñetti fan wala sangoo ko ñu bari fii sax duñ leen GP duñ leen yóbbul seen garab par téléphone lañ leen koy defal seen aaja faju ci mu neex yàlla. Mm-hmm. te nag nit ku ne ci loo yàlla may nañu dañu koy xam. Mm-hmm. am na koo xam ne dama ko doon faj waaye duusam dafa am seetu xam naa mu may dégg saa su ne rek day ne ci seetoom ba rek bu sangoo ba pare bës laa ko woo fi ne ko yóbbul yàq faj bi. Mhm. seetu boobu nga taxaw foofu di seet kooku ba léegi sax dafa ragal ma ne ko dindil seetu boobu sa duus ndax seetu boobu muy seetu ay mbirum fantôme te moom mu ngi féete Europe mhm. fantôme bi foofu la koy duggee te léegi yàlla may na ko jàmm yàlla may nañu suñu nit ci lu muy nekkit daañu ko xam ko ci loo nekk daañu ko xam lii mayu yàlla la ñu ngi koy sante yàlla waaw mais soxna si man li ma jaaxal ginnaaw faj gi ñi ngay ñaanal ñëpp da ngay dem ba après am ak ñoom relation bu familier boo xam ne man daf waaw parce que ci li ma nekk dafay dëgg ku ko taachal rek yaa ci dugal tâche ndax boo ma seetloo ba ma duggee ci métier bi ba léegi 22 ans ña ma nekkaloon dañ may indil boole kenn man sax bëgguma nit gis ma ci youtube sax di ma woo dama bëgg nit ma faj ko ba pare mu jàpp loxo nit boole te tey rek lañ ma booleek benn kilifa koo xam dama ko faj ba pare man noon noonu laa ko bëggee. ñu tuddee parce que ñu ci ak ay oto ak ay teraanga lu ne ndax ndax. ndax liggéey bi du moo may nit rek yàlla moo boole ak nit mu jaar ci man yàlla nag na nit ki xam lu fi faju rek yàlla la yàlla mooy wommat nit indi ko ba ci man ma faj ko yàlla ànd ci mu wér suñu kóllëre di continuer ndax man bu may ànd ak nit damay ànd ak yow ngir yàlla man toog naa fi man damay toog fi nit am soxla woo ma ma yëkkati li ma am jox la ñu ngi may dégg de parce que nit booy ànd ak moom da nga ànd ak moom te yàlla tax te léegi àndu bu yàlla tax bu amee dañ koy wàññi te nag nañ delluwaat ci loolu loo tax nag sama mbooloo mag ma xamee sama clientèle bu ma xam du ma bàyyi mhm. parce que soo ma wooyee même bu fej bi jàllee dinaa la conseiller ci loo nekk dinaa ko xam dinaa la ñeental boole la ci sama bopp ba nga xam ni kii boole na sama bopp moo tax ñoom ku ma ci woo danaan ma man ci njaboot ji laa bokk nañuy ànd te yàlla tax mhm. jataayu xam-xam bu riche euh, li euh, li duuf ci nag bi xarul ci li waaye balaa ñuy dem dinañ am yu ñu yu ñu mosaat mhm. ndax soxna si dama leen wax ni que yàlla mooy faal li may yàlla mooy may jàmbi lu ko soob mhm. soxna si yii ay ndomba la yoo xam ni der yu wuute la ndomba yu yéeme nag ndomba yu doy waar ndomba yoo xam ne boo ko takkee premier jour sa ndigg day tàng jër nga xam ne am nga loo takk ndomba la yoo xam ne boo koy denc doo ko teg à la portée de l'air libre mm-hmm. danga koy dugal ci armoire tëj ko wala nga muur ko dara ndomb bi nga gis deru giléem kenn mosu ko gis ku ko aw de mu ngi nii bii deru bukki la deru bukki bu jigéen bu am doom ba noppi ma nga ne mm-hmm. bii deru nag la bee deru nag la